Eh, ñu jël ki nekk ci ligne Bassir Fofana journaliste ñu lay nuyu di la ziar di len ziar yéen tamit ba yaa ngi ci jamm alhamdullilah yaa ngi en direct biir VIP people ci émission wax sa ñu waxtane tollu way rew mi ak li nga xamanteni demb mom mo am yarax waaw wa mom lañuy waxtane ngeen nis rek li nga xamanteni mom moy sa point de vue par rapport ak situation bi man day euh, d'abord abord ñi nga xamne Euh, di jaale ñi nga xam ne dañoo ne ñu fi ñàkk seen bakkan. Mm-hmm. donc euh, bu loolu jàllee masawu ñi am gaañu gaañu. Mm-hmm. masawu borom bus bi ak ñu doon liggéey ci bus bi nga xam ne. Mm-hmm. loolu moo nekkoon seen gañ-gañ liñ koy waxee maanaam seen sutura yàlla foofu la doon jaar. te nag bu ñett yooyu amee ba pare nag. man balaa même ministre de l' intérieur di wax maa ngi woon ci benn plateau télé. c'est ça le terrorisme l'acte terroriste là. dëgg la ki ak noo ko ci mhm. terroriste la. Mhm. xam nga acte terroriste c'est quoi le terrorisme. Mhm. c'est moi utiliser la terreur la violence. en vue d'empêcher. madame Terre, l'ordre normal des choses mu de mu déroulé mooy nit ñi leen. leen pour que nous pour que yéen def parce que terroristes yi bu ñuy jóg lii lañ ci jublu fexe ba tiital nit ñi ba kenn du dem toog ñëpp toog seen i kër bu boobaa ñoom loolu mooy doon seen ndam kon xam nga tey jii nii mu ñu taal ko ci benn bis boo ko déggee keneen kuy duggaat bis xëy na xelam mu ne ah est-ce que du sama la ñuy taalaat ah? est-ce que du ma jël donc loolu mooy terrorisme c'est un acte terroriste ñi ko def nag yàlla na leen yàlla weer ba ñu xàmmee leen ba ñu mën leen ay daan yu war seen kaw dëgg la

boo t'as seulement parti Pastef li xëy na du police donc loolu moom il y a un lien entre ça et Ousmane Sonko. lien bon c'est établi ndax maintenant ñoom ñu ko def waa Pastef la ñu. Mhm. wala duñu waa Pastef loolu moom ak ci ko leeral. Mhm. voilà. Mhm. Et Ousmane Sonko sous mandat de dépôt. mu mu jur ay dégâts fii ci réew mi comme li nga wax démb am na lien ak li nga xamante ni moom moo euh, am démb yaraax arrestation bu Ousmane Sonko ci 24 heures ñu xamal ni sept personnes ñàkk nañ ci seen bakkan. ci ni ko defee mandat de dépôt tamit ban xalaat nga ci am. non xam nga defe naa yow invité nga ma seen émission boobu. pour mhm. sa plateau boobu. dëgg la ma ne la état kenn du ko foowee. Mhm. kenn du song état di gagné. dëgg la ma ne la Ousmane Sonko lii muy def ni bu maye moom moomu bu ñu deful ndànk si tas la ñu jëm. dëgg la donc lu ma wax noonu moo moo fi egsi. Mhm. donc kuy xam ni état di fonctionner kiy xam luy état nga toog nga dégg yëpp koo tudd teg ko ci ndodd Ousmane Sonko. Mhm. lu la doon bett mooy ñu ne Ousmane Sonko génn na dem na ñibbi këram. charge yi dafa diis. voilà charge yi dafa diis. Di sa yi gwa hame di soumou kwa penal Soumou kwa prosedi penal mwone Kouni tope sarj yoy nou nou Mandat de depo mm-hmm. mm-hmm. de yon ete obligatoar Kouni tope sarj yoy nou nou Ouvertion bil informasyon judisyar Ete obligatoar Kou woba Se de fey kriminele E de fey kriminele fowfounou nou Amoul dele si mwa L'instruction ete ouverti alen ete alen finit Mwen man amte yi di juj de instruction Mwen nete yi kousman son koufoun kote yi fowfounou nou ñetti at ba ñeenti at te du ko woo du laal. kon nag charge yi ñoo diis moo waral loolu mu nekk. Mhm. te diisaay charge yi ñu ñëw jël décret tas Pastef. Mhm. ci biir ci biir tas boobu am na ñenn ñu nga xamante ni euh, euh, maanaam ñu ngi féete ci li nga xamante ni rek ku ci mel ni Aliou jàpp na ni euh, Pastef li ko tëgg tasu ko ndax parti la boo xamante ni maanaam dafa wër àdduna.

d'arrêter sa démarche insurrectionnelle. ok xam nga kon nag yow mii nga xam ne Alioune Tine. Mhm. ñëpp xam nañ ni fi ñuy jàppale Ousmane Sonko ci réew mi ci nga bokk. Mhm. boo taxee bind ci sa rafet Ousmane Sonko na bàyyi di def loo xam ne day nërmel état bi buñ ko jàppee su lu nërmel état bi da nga war a tàccu état boobu waroo ne lu mu def bu yoon. Mhm. kon day wane le double jeu de gens yu mel ni ñoom Alioune munoo wax ni kii lu muy def baaxul. Mhm. lu muy def day dërmel réew mi. jàpp mhm. loolu nga ne lu tax ñu koy jàpp. Mhm. kilifa la borom bu weex la am na wax yoo xam ne bëgguma ko wax mais am na loo xam nga fu ma bëgg jëm. kon nag mu ngi noonu moo tax nag ay wax ci loolu. boo indilee loolu xale yi lu ñuy wax vaar rek boo leen ko teglee rek. da gis ni leneen la mais en tout état de am na loo xam ne man wax naa ko te d'accord naa ko moo di ne. parti politique association la gis nga parti politique ak ASC ba ca koñ ba ak daayira ba ca mhm. jàngu ba mhm. ñoom ñëpp ñëw bokk statut c'est des associations privées mhm. te association privée dañ ne bu doxalul yoon may nañ may nañ autorité mu das ko kon nag autorité bu ko tas am na si lu mu sukkandiku ba tas ko boo d'accordee mu nga ne waaw boo d'accordul nga ne waaw maintenant yow boo d'accordul mën nga dem cour suprême waaw nga nga attaqué décret bi cour suprême nga ne dañoo tas sunu parti te d'accord ma mhm. loolu nit ki am na sañ-sañ def ko mhm. waaye bu dul woon démb nga xam ne toog nañ ba ngoon gis benn communiqué boo xam ne ñu ne ci passef la jóge ñuy ñaawlu lu xew yaraax mhm. yàqu-yàqu yu fi am yëpp mosoo leen dégg ñu def si communiqué est ce que du démb tam lu dégg gars yi bëgg leen euh, maanaam taftal li nga xamante ni mooy mbir mi moo tax ñu génn tam mën na am c'est pour se mën na am te aussi dañoo génn pour xool lu ñu setalee seen def mën na am ni effectivement du ñoom mais lu mu ci mënti doon taal nañ fi université déggoo leen ñu wax fi wala wala am déet. dëgg déggoo leen ñu wax ci yàq nañ fi ay bërëbu liggéeykaay déggoo leen ñu wax fi toj nañ fi ay boutique ak ay magasin déggoo leen ñu wax fi kon loolu yëpp ñu doon def noonu kon ñoom seen ay nit ñoo ko doon def parce que c'est la première fois ñu avoué donc loolu mooy benn boy njëkk a wax ñaareel bi mun nga ne xëy na dañ ko def pour ñu setal seen bor mun na am sax du ñoom sax. Mhm. waaye lu mu ci mënti doon c' est la première fois ñuy def communiqué pour. naqarlu loolu mhm. alors que ba léegi ñaata nit ñoom ñoo wàññi ñu ne juróom fukki nit dee na. te juróom fukki nit yooyu yëpp ñoom dañoo toog ñu ne nguuru Macky la. Mhm. est ce que mos nañoo toog benn yoon setal si seen bopp. nag xam nga dafa am yenn doxelin yoo xam ne. dëgg la. voilà ça va éveiller jàngat nga ci am mu ngi biir Sénégal ba tey ginnaaw euh, euh, euh, avis de recherche bi nga xamante ni lancé nañ ko mais boobu tey gis nga ko démb def na apparition wane boppam ne moom mu ngi biir Sénégal itam. lu di ko ñaaw ci maanaam li nga xamante ne noonu la ko avocat yi ak yi fii ci réew mi. waaw xam nga Juan Branco dafa am ñaari yëf. dafa am mbir moo xam ne loolu suñu mbiru dëkk la suñu mbiru état la. dafa am loo xam ne mbiru Ousmane Sonko la. Juan Branco dafa ne bitim réew di saaga suñu état. Mm-hmm. te nag ñun sénégalais ak fu waay mën a bokk. Mm-hmm. warul mën a nangu ñuy saaga sa réew. loolu am na. waaw te moom nag da ko def def ko defati ko defati ko. bu mm-hmm. war a ñëw dugg Sénégal. ñooñu ñu ne ko sëñ bi yow mënoo dugg suñu réew bëggoo toog mënoo toog bitim réew du ñu saaga nu mu la neexee bëgg a dugg suñu réew kon dellul fa ñu refoulé ko. Mhm. yaa ngi dégg. donc suñu état jël mesure ni kii tudd Juan Branco dugg suñu réew. Mhm. te loolu état bu ne am na si sañ yow mii di wax ak man boo amoon visa France visa moo lay nga dugg France. Mhm. nga dem ba euh, territoire français nga wàcc Roissy Charles de Gaulle wala Orly.

militaire yi lu ñu ko tracé Juan Branco dafa jël avion wàcc ci Gambie. Mhm. ba mu wàccee kàddu mu am ko fay xaar. Mhm. te nag gis nga nag la xewoon ca frontière Sénégal Gambie boobu. Mhm. mooy xew ci frontière réew yëpp. amul benn réew bu la ne sama frontière yëpp mën naa ko aar mën naa ko ñàkk ba kenn du si romb te duma ko gis. ñun ñi ay waa Casamance lañ. bu ñuy tukki dem ba Kaarang. wala dem ba kër ay ñu frontière bi tëj nañ ko di gis ay borom moto yoo xam ne mën nañ la jéggil. jaar ci ay ruq loolu moom dëgg la. Mhm. voilà kon loolu dañ ko nangu kon nag dire que xawoon Branco duggul suñu réew parce que suñu service de sécurité yi ñoo deful seen liggéey non ñu ko woon parce que si force frontière yi ñuy enregistré nit ñi jaaru fa. Mhm. maintenant duggul suñu réew par contre lan laa d'accordul mooy ñu gis ko ci conférence de presse Dakar lu muy fonctionner mu wóor la ni conférence de presse boobu noonu am na ay agent de renseignement yu fa toog Juan Branco ñëw wax lu muy wax génn dem mm-hmm. loolu moo dul yoon mm-hmm. mooy génn bu mu génn boobu dem ba tey yi ñu koy recherché ko ba moom muy toog di ñu narge bu dee mu ngi biir Sénégal te génnagul Sénégal man de gëm naan dinañ ko jàpp ah. bu dee mu ngi Sénégal bu fekkente ne génn Sénégal nag mm-hmm. moom mënuma ci dara parce que ku jaaree Gambie ñëw mun na jaaraat Gambie dem yoonam. dëgg la. waaw mais fii leen daal moom moo di ni. Mhm. Juan Branco am na attitude boo xam ne. Mhm. rafetul ci diggante koo xam ne lu Sénégalais daf ñoo jàppee ñun ñu mel ni ay ñu tekki di wax suñuy réew loo xam ne nakasul noonu am na droit défendre client mhm. loolu bokk ak moom lu mu doon def maintenant nag. comme dañ la dugg ci réew mi nga dugg ci yooyu atoon buñ la jàppee nag lu yoon war lu yoon wax